yoonu murid day yoonu kilifteef sëriñ Saliou Mbacké nag danaa wax ne taalibe bu ñu sëriñam buy fay du tàggoo waaye fan yi weesu dégg ngeen ay wax yu ñàkk teggin yoo xam ne ña koy wax ñëpp xam nañ ne bu fekkee nee nañ ay jullit lañ itam mel na ne naa naafeq mi ngi ci ñoom naa naafeq nag rasulullahi da ko leeral mooy koo xam ne bu wéetee lam lay wax ak bu bu nekkee ci bitti la bay wax du bokk ndax bu fekkee génn nañ ci bitt na walla biti yuxaadi'uuna allaaha wallaziina aamanu wa maa na illaa anfusahum wa maa yash'uruun seen bopp rek lañ koy def ndax bu fekkee génn nañ ci biti dañuy wane ne fonk nañ Sëñ Tuubaa fonk nañ njabootu Sëñ Tuubaa buñ génnee nag di wax wax yu ñàkki teggin yoo xam ne wax ya ku leen ca toppoon ñoo seen bakkan du ko fekkee kon nag nañ xam ne nit lu mën a muñ muñ am na foo xam ne bu fa àggee bu sësee bay def mën naa dem bëpp kon ñoom itam nañ xam bu baax li te xam ne yaakaari jàmbur kenn du ko foyee rawatina kilifa goo xam ne am na lu mu toll ci àddina sépp nga xam ne waxuma du ko yaakaar Sëriñ Tuubaa sax waaye képp kuy jullit te sa lislaam sell wala sa xol rafet wóor la ni kii dara yi àdduna néew ci moom wóor ne Sëriñ Tuubaa rek ne ci moom kon kooku képp kuy jéem a jël ay wax yu ñaaw du koy jéemale ci moom su bopp rek nga koy def fa man afa wa aslaha fa ajruhu alallah kon loolu rek dañ jëfandikoo waaye nag wa jasaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha bu buñ la tooñee boo fayee suñ borom neen dara nekku ca waaye nag fa man afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah kon nag ñi ngi xamal ñi ko doon def di leen xam ne tooñ nañ tooñ bu rëy rëy te xam ne la ñuy wax nuur na lu tuuti ci ñoom kalimatan kaburat kalimatan taxruju min afa taxruju min yaqulun كبر أن تخرج min afahami ñu yaquluuna illa kasiba loolu rek la wax joo xam ne dara doonu ci am lu lu lu wér wax joo xam ne bëgg a gàkkal lislaam la ak bëgg a gàkkal kilifa diine waaye nañ xam ne lottu na ci ndax wa shamsu urada duha fi l ufqi taaliatun an la yara daw aha man laysa sa basari jant bu ne fàng ci diggu ñolloor képp koo xam ne bëgg nga ko fay na la wóor ne yow yaa ca fay fii ci Tuubaa nag kon nañ xam ne ña ña doon def loolu te di mbubboo wa wala ñu am lu ñu lu leen rusé wala ñu rus leen seeni bokk war nañ ko xam ndax saafara ko lu yomb loolu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon na leen ne leen bu fekkee seenu dëkk suñu dëkk doyu leen suñ bu leen suñu jumaa suñu dëkk bu leen bu mu leen doy kon nag buñ làqoo ci jàpp ne di nax yenn taalibe Sëriñ Tuubaa yi leen xamal gëm nañ Sëriñ Tuubaa waaye nii yoon yu doxee lañ gëmut loolu wax jël wax la joxe dafa def tadaaxut li ñuy wax dara gëmu ci ndax mënoo ñàkk weddi Sëriñ Tuubaa te mbooleem xaayit yi nga xam ne Sëriñ Tuubaa gëm na ko yëpp nga weddi ko kon nax nit ñi lañuy def ngir bëgg yàq seeni pas-pas waaye nañ xam ne ba àdduna tukki duñ ci am ndam mukk yuriduuna an yutfiu nuurallaahi bi afwaahihim wa yaaba llaahu illaa an yutimma nuurahu kon mënuñ ci dara kon ñu ngi leen di waxaat ne nañ bàyyi xel bu baax a baax li ñuy def te xam ne kat nit ñi luñ leen jéem a téye téye am na foo xam ne bu ñu fa àggee lu ñu mën a saafara ci benn bis wala ñu mënoon leen génne seeni kër ndax waxtu ne nit ñi di ko jàmbat nañ génn diw nañ génn diw kilifa yi xam responsabilité ak xam ne àdduna dara lu jar loo néew fi lu jar ñaawal néew fi ñuy rafetal di leen aar leen sàmm ñoom itam kon war nañoo xam loolu te séddi leen waaye am na sa xeet wax yoo xam kenn bëggatu koo dégg wala bu ñu ko déggatee kat danañ bàyyi seen liggéey nit ñu saafara ko seen. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته